bi mi ngi ñu koy wax fan yi yëpp nag mu mel ni nawet bi tàmbali na bu baax a baax euh, sur l'ensemble du territoire euh, national Oumy Samb maa ngi lay maa ngi lay fay bu baax euh, Fati. jërëjëf <laughs> je te <laughs> retourne encore le compliment. merci bonjour à nos très chers donc on y va pour euh, mm-hmm. euh, les tendances du jour donc comme ni nga ko waxee rek ñu jàngat ko également ci carte bi. Mm-hmm. ñu ngi xaarandi ay taw ba tey sur la totalité du territoire pour cette journée on est encore sous l'influence de ci phénomène El Niño on l'a expliqué il y a la semaine environ. Mm. ñu on est sous cette influence mu toll nii au niveau des pluies euh, ci journée bi la carte le montre bien la pluie bien installée euh, ci euh, gox yeeg gox goxaan yu nekk pour les températures ci suba gi moom ñu ngi dooree 23 degrés aujourd'hui plus basse température ca Tambacounda lay doon la maximale 28 degrés du côté de Dakar 27 ca Ndar. Euh, ak Louga 26 pour Matam Thiès euh, Kaffrine également Ziguinchor 24 degrés diggante Sédhiou Kolda et puis Kédougou dënnu bi à l'extrême sud euh, pour ne pas foofu noonu c'est quasiment euh, tous les jours taw bi yoo xamante ne dafay ànd ak dëndu un taux d'humidité euh, bu toll ci 98 pour cent boori Koungheul lay doon ci euh, ci suba gi il fait assez humide en conséquence des pluies qui sont présentes pour l'après-midi donc mu ngi nii taw yuy desandi si réew mi ba léegi mais dinañ am ay leeraay boori bët gànnaar jëm soowu réew mi Saint-Louis Louga Thiès Diourbel Kaolack Fatick ainsi que Dakar euh, li des ci euh, réew mi moom si on prend ça en diagonale euh, ay taw lay doon toujours ak dënnu bi qui est euh, situé à l'extrême sud du pays les températures de l'après-midi moom ñu ngi toll ci 30 degrés température yi gën a néew doole ca bët saalumu réew mi diggante Ziguinchor Kolda en remontant 32 degrés la ñuy am ca Kédougou 33 pour Tambacounda température maximale à Matam 34 lay doon ca Louga également et puis Diourbel Thiès. gis euh, température en légère chute <coughs> euh, comme ni ma ko waxee léegi nii rek taw bi moo waral loolu yëpp guusaay bi ak température yi di wàcc donc euh, ça fait permet le refroidissement des sols mi ngi noonu soxna Fati donc ci tënk rek pour les pour le climat du jour taw yoo xam ne ñu ngi descendi ci réew mi de faible quantité la ñu wax à intense ci yenn gox-goxaan yi mhm. comme ni mu le 15 août rek fii taw bu baax baax fii taw tuuti euh, suivant niir yi fan la ñu euh, fan la ñu toll ci asamaan si mu ngi noonu pour les marées donc géej gi 8h43. marée haute lay doon 21h07 tamit marée basse 15 mooy heure bu baax bi activité très élevée l'état de la mer euh, euh conditions yi sont favorables à la navigation donc et puis euh, ndox bi toll ci 29 degrés euh, pour aujourd'hui ñu jeexalee ko jant bi. Mm. mu ngi fenk ci 6h56 et puis durant tout ce temps jusqu'à 19 h mm. bi mu ngi toll ci 7 c'est-à-dire très élevé. Mm. donc euh, comme ni ma koy ñaaxee à chaque fois rek euh, mettre des habits en coton euh, pour éviter que euh, rayon UV yi di transpercer yaram bi loolu mooy nekk kaaraange gi concernant le soleil ak des casquettes des chapeaux boire suffisamment d'eau mm. euh, la bonne distance de sécurité puisque dafay taw pour ñi di dawal mm. euh, loolu yëpp ay xibaar yu ñu bàyyi xel war a bàyyi xel la euh, fi mu toll nii sur euh, la route donc ma bàyyi leen ba ci kanam rek ñu daal di ko mm. tënk en express à tout à l'heure incha allah merci beaucoup Oumy Samb moom la àndaloon ci météo du jour